yi ak bakkanu nit ñoo yem quoi wala bakkanu ginaar yi ñoo yem quoi bu fekkee ne bakkanu nit doomu aadama dafa fort dañ ko war a protéger comme ni ñu sàmmee bakkanu président de la république mm-hmm. mais ñooñu seen famille ñoo demande justice ñoo demande justice te il y justice foofu laa waxee nag li koy permettre mooy réforme yi war am te dama ne réforme yooyu buy ngelaw di dënnu naaj bi tàng dama ne nga tëdd di doo nelaw sunu affaire nekku ci réforme yi day am man la on ira jusqu'au bout de ces réformes parce que mooy waat bi ñu des ak sénégalais yi moom laay wax ne la kuy respecté respecté ko kuy gëm gëmal yàlla ñun li ñu doota traversé nag ci épreuve doot ko dund ba tey ñu ngi nii maa ngi nii jàkkaarloo ngeen seen plateau toog di wax ak li ñu dund lépp xanaa ne war a xam ne yàlla am na mhm. kuy gëm gëmal yàlla yi nag waree nañ gannaaw yàlla nag pouvoir yàlla ba seen loxo parce que doole peuple nag mooy doole yàlla dëgg. féministe yi. waaw. nee naa tuutal daal parce que gouvernement bu def vingt cinq ministres. ñoom ñeent dong lañ ci ba ñu calculer ko sax ne treize surtout surtout sax euh, ci benn époque boo xam ne dañuy woote parité. xam nga sur sur euh, vingt cinq. nous ne nous sommes que quatre. xam nga man en fait peut-être seen ñoom seen rôle la. ñu taxaw loolu lañu gisee. Mhm. mais des fois ñoom dañuy juum si seen seen élément d'appréciation xam nga tax wax ko. Mhm. ko xam population sénégalaise xam ne jigéen ñoo ëpp góor ñi macha allah waaw wala déet. oui pourquoi waxuñu ne jigéen ñoo war a ëpp góor ñi ci gouvernement bi non damay laaj jigéen ñoo ëpp ñoo war a ëpp góor ñi ci gouvernement bi benn ñaareel ba ba ñuy dem di candidaté liste bi ñaata jigéen a ci nekkoon. ñaar non benn jigéen. benn. la kenn dafa bàyyi ñi dem laa wax ñi dem élection est-ce que ñoom dañoo taxaw génn noonu jigéen dem ngeen déposé par seen candidature est que féministes yi di wax neen jigéen ñi dama leen ngeen déposé seen candidature ñoom ñuy wax di génn est ce que ñoom dama leen déposé seen candidature pour respecter la parité dans les listes est ce que jàppale nañ ko sax non moom xam nga mhm. est ce que ñoom sax voté nañ ko jigéen kooku mhm. parce que ba ma déggee résultat yi di wàcc zéro yi ak mel yi moom kon yaa ngi ñëw si nag mhm. si appréciation subjective boo gënee ba doy bu fekkee dara ni c'est une élection présidentielle boo duggee si doy nag foofu bi day jeex day faranku day furunkulaay mais dama jox exemple bu ndaw pourtant am na ku jigéen koo xam ne lañ ko jox ci charge daanaka ñetti ministère la. Mm-hmm. te bàyyiwu leen ci xel. ministre de la jeunesse des sports et de l' emploi. trois ministères lañ ko jox. jigéen la moo naan ñetti jigéen la kon. Mm-hmm. dafa mel ni ñetti jigéen kiñ jox peche mais liñ ko jox demeen nga xool daal l'histoire du Sénégal ndax mu nañ kaa jox jigéen foofu compétence ñu jiital beneen bi mooy gis nga bés dina ñëw Sénégal. man maa ngi doon xaar ñu ni nañu def clé de répartition bi en fonction de la démographie de la représentation démographique nga ne jigéen ñi 60 pour cent lañ ci donc 60 pour cent mooy reflété wu si gouvernement bi moom laa tax moo tax ma ne la ji ay parité ni pour man sax dafay yàqal jigéen xam nga tax parce que mën nañoo gis ni compétence yi jigéen ñi la ëppee ci yenn institution yi jigéen ñi war faa ëpp mais parité mooy tax jigéen yi. xam nga am solo am solo mooy kañ fa teg est-ce que le profil répond à bu ñëw wi ñu ne pourquoi pas pourquoi ñu indi ay góor ak ay jigéen si le profil répond à l'emploi même bu nekkoon ministère des forces armées dañu fa yóbbu jigéen si le profil répond à l'emploi tey jii ministère des affaires étrangères et de l'intégration africaine ministère de souveraineté jigéen nañu ko jox Sénégal fii euh, euh, ministère de l'intégration amoon na fi ministère des affaires étrangères amoon na fi nga boole ñaar yëpp jox ko benn jigéen. soxla yaa Yacine Fall kooku si portefeuille est-ce que xam ngeen li mu yor si responsabilité ñaata ambassadeur ñooy nekk partout dans le monde di parler pour le Sénégal ñoom ñëpp moom la ñu jox te ay góor la ñuy doon ay jigéen ñoom ñëpp moo tax mbir mi du ay ministre état yaatu na yaatu boo xam te ne jigéen ñi dinañ servir dans l'appareil étatique état yaatu na yaatu boo xam te ne sax des fois jigéen ñi soxla soxlawuñ décret sax pour servir fa ñu nekk. xanaa xam nga li ma gën a respecté mooy opposition ak société bi fa taxawee dañu fa a taxaw ñu ngi servir l' état du Sénégal sans pour autant nag ñu naan ay ñu jàppee ni pouvoir séddoo a arrêté. Mhm. xam nga te mbir mi bu ñu wax naan ay parité parité parité mooy lan est ce que évalué nañu parité li mu yàq est ce que gis ngeen ne parité ñàkk a gëddal jigéen sax la gën a def ku gëddal jigéen. Mhm. est ce que nit ñi évalué nañ loolu. alors jigéen ñi Sénégal buñ leen nax. bu ñu si jógee loolu après yóbbu la ci 8 mars. leen ay yére ngeen di di fecc te 8 mars moment la boo xam pour ngeen def seen i revendication mm-hmm. wala moment ne pour la femme affirmé wu wan li mu def li femme def si àdduna bi. Mm-hmm. li femme dañu bañ a teg ay sàmbay ma di di waye ka fecc kat yëngal ndigg ak nangam sàngam. 8 mm-hmm. mars nekkul pour loolu 8 mars pour ndëpp la ndëpp. ndëpp def les états généraux pour la condition de la femme. ñu xool. jigéen mooy am doom mosoo fii gis góor gu ëmb est-ce que département bu nekk am na hôpital digne de son nom est-ce que maternité maternité bi fa nekk digne de son nom pour avec un plateau médical di recevoir la femme est-ce que jigéen au Sénégal war nañu woon nangoote muy def 100 kilomètres pour dem di délivrer di accoucher man revendication yooyu laa gëm. mais ay non 8 mars cotisation jox nañ la tissu ak 15000 francs nga dem ndróole. mais après voilà jeex na mel ni 8 mars jaar foofu. maître xam nga ren 8 mars bi ñu jógee tey euh, dama naan thème principal bi moo nekkoon une autorité parentale partagée ñoo focus ci xale. xale yi xool euh, nan la ñi ngay def yaayam mën a voyager moom de telle sorte que papa mën na voyager ak ñoom ñu gis nii ci euh, gouvernement bi euh, ñoom jigéen ñi ba tey ñooy wax ne leen di ngeen a xaw a minimiser toute la protection de l'enfance. xam nga mooy li ma wax rek des fois dama jigéen ñi baal nag des fois dañuy xëcc loo xam soxla soxlawuñu ko sax loolu delloo mu jigéen ka ginnaaw de dama koy delloo si man sama pas-pas l'islam xam nga bu njëkk ba ba ba mu demee dans pays islamiques da gis ne sax. certains pays sax sont un peu en avance di jox jigéen permis de conduire ñu am droit de vote xam nga li taxoon loolu ñu xañoon leen ko xañu leen pour tuutal leen de dañu leen bañoon dugal ci coow li lu jigéen yàlla da ko teral day toog ñu dawalal ko noonu lañ ko kiiwee dañu ne sa jabar amul obligation sax pour toggal la nga lekk bu la ko defalee sax am na droit ne la fay ba nga fay ko mais ñu bëri dañuy bàyyi xel yàlla moo yëkkati jigéen am dafa yëkkati jigéen. li tax mu ne woon bul voté. xoolal bul voté warul togg. bul voté bul dem di tànnal njiit ba. li tax ñu ne leen jigéen bul voté dañ ko doon bañ a dugg si coowu vote jigéen war dugg si coowu. li taxoon ñu ne ko jigéen bul témoigné bëgg ñu woon jigéen dem ba tribunal ñu naan kàddoom wóor na wala wérul bul témoigné maanaam dañ ko doon bañ a duggal si coowu kon xanaa ko jigéen yàgg nañ ko denc. jigéen yàgg nañ ko teral jigéen yàgg nañ ko ba dañ ko dugg ci ay épreuve ba pare ñu góor nag foofu la kii ñëwee sama mbokk taalibe yi xam naa dinañ ma kii dañoo wax góor yàlla da kaa sàkk ngir boppam sàkk jigéen ngir góor boo gisee ñu ne lan ay awa ñu ngi ko sàkkee ci faaru aadama nekk nañu am ubbi faar bi loolu c'est trop terroriste ubbi faar dafa gën a nit loolu c'est trop truc c'est pas ça mais dañu la point faible góor maanaam fi góor mënul foo la ko jigéen di mottalee kon góor nangu nga ni matadee moo tax ñu indi jigéen pour mu mottali ka loolu moo tax ñu góor ak jigéen day nekk benn xanaa ku comprendre cette condition de la vie humaine war a comprendre ne jigéen fan la féete ci société fan la féete ci kii benn bi mooy jigéen mooy yar société famille yi liggéey dinañ ma baal mais dañ ni la kër ak li mu laaj ci responsabilité ak yar doom li mu représenté si biir société buñ ko ci confier jigéen kon xanaa jigéen nañ confier li gën a ëpp solo si société mm-hmm. mais tey jii wax ma ñaata jigéen ñoo ñooy ñooy yarati am na benn xale jigéen ndeysaan yaa eh, doom ji dani ko euh, saa yi lu mu ko laajee mu ne ko non j'ai pas de temps j'ai pas de temps doom ji un jour mu xool yaay ji ne ko mais maman vous n'avez jamais eu mon temps yaay ji dem ba liggéey ba bureau ba affaire def ko cas de conscience. Mm-hmm. mu xool boppam ne effectivement moo fils a raison mon mon enfant a raison qui a 4 ans vous n'avez jamais eu mon temps xam nga luy yaay temps bi mu am si jigéen. malheureusement dañu koy naxee ay liggéeyal ak droit ak parité ak nangam sàngam tolloo soxlawu leen loolu jàkka ja mu wax a wax ba jiite ko. boo nekk si biir kër gi jaan ne tël wéy jaan jaanang fi ku góor ki mooy dem jàkkaarloog jaan ca wut rek li ku góor ki <laughs> kër gi doon tàkkam naan way góoyu góoroo wuyu <laughs> góoroo ga mais na aussi faaw ñu nangu ko ne day dox non moom laa lay wax àdduna day dox mais ne li ñuy revendiquer damay faral di waxtaan sama xarit man leen jigéen joo fi gis na moo gën a bëgg jigéen ci kër jëkkër ju am fulla góor gu am fulla et pourtant bari na si ko xam ne ñu amee góor gu am fulla ñoo koy njëkk a ñàkkal fayda mm-hmm. waxin la am na ma c'est-à-dire c'est des yoo xam bu ñu ko waxee fii ça m'a choqué ça m'a gêné mais c'est des vérités ñu ñëw nag pour en censeur di joxe ay cours de morale ak yooyu xam naa ñu bëri nañ ma mere tey parce que ñi yéen a ma génn ci politique ah, mais dama ni dama ni bu ñu tombé dans le piège des conquêtes occidentales mm-hmm. man foofu lay wax ne tombons pas dans le piège des conquêtes occidentales te xoolal bu baax conquêtes occidentales yi tout ce bu nekkee règle ñoom ñu koy bëgg a def exception lay wax tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas interdit est permis moo yàq société pour man tout ce qui n'est pas permis et interdit la ñu waroon a wax tey ji même booy def lu baax sax ah boo ñëwee si sa passeport lu lay wax al fuqara wal masakiinu boo dee bay sarax naa laan faqir sarax saraxal faqir doo ko sarax miskin bu fa saqir taxee miskin taxaw joxal faqir ba pare pour defar société bi la woon ñu ne la même booy def lu baax rek xawal ndax autorisé nañ la ko ba pare kon la ñuy defar société bi alors bi ñuy defar société y a naan des conflit de civilisation choc mm-hmm. la dafa am y a l'Occident y a le non-Occident te xool bu baax li ma la wax tout ce que l'Occident érige en principe le non-Occident érige en exception mm-hmm. tout ce que l'Occident